may rafetlu nag euh, teewaayu monsieur le ministre maire de Dakar Plateau bu may ñëw moom laa fi fekk ci kilifa di ko rafetlu bu baax a baax parce que yor na ay responsabilité yu am solo wante mu bàyyi léppam ñëw ci marché bi pour euh, masawu mbokk yi euh, gunge leen jàppale leen kooku tam ñu ngi koy rafetlu ñu ngi tamit encourager féliciter le corps des sapeurs pompiers ñu fi jot ñëw nu mu gën a gaawee ak tamit félicité tamit euh, les services de sécurité en l'occurrence la police euh, nu ko waxee maire wu euh, Plateau monsieur le ministre maire fii moom du bërëb pour mën a waxtaan waxtaan wu responsable kon moom comme xew-xew bi mi ngi xew ci goxam ñun mairie dakaar suñu warugar mooy nekk ci wetu commune Dakar Plateau gunge leen ndax ñu mën a jàppale suñu mbokki commerçant yi ñu mën a delluwaat ci seen liggéey bu ci am solo nag euh, ñoo ko déggandoo man ak monsieur le ministre maire mooy euh, foog ñu góor góorlu ba marché yi ñu mën a am ay bouches d'incendie donc euh, je crois que monsieur le ministre maire wax na commandant sapeurs-pompiers yi wax bu am solo ñoom nañu indiqué fan nañu na dëkk ay bouches d'incendie te communes yi dinañ ci def seen kéem kattan te eh, lii di mairie de Dakar lu mu ci eh, noro tamit eh, am ci taxawaay suñ ci eggee tamit dinañ ci def tamit suñu kéem kattan te je pense que lii loolu yàlla la parce que nattu la nattu bu leen yàlla teg donc ñun suñu warugar mooy lu ñu yàlla dénk ci ay responsabilité surtout ci mbiru sociale ñu mën a góorlu ba mën a jàppale mbokk yi bu ci des tamit je pense que wax naa ko waxaat ko foog suñu mbokk yi tamit ñu jéem a bàyyi xel ci lu ñu leen di wax man ba may tout tànk dama doon ñëw salle de vente te loolu yàgg na ay at ci ginnaaw euh, ba tey soo ñëwee salle de vente daanaka lu bëri changé wul kon ñun lu ñuy euh, ñaan yàlla mooy yàlla may ñu ñu mën a waxtaan ak mbokk yi ba ëllëg Dakar mën a am ay centres commerciaux ñu nga xam ne ni nit ñi dinañ fa mën a nekk di mën a liggéey dans des conditions de sécurité adéquates te clients yi tamit di ñëw tamit di gis tamit seen bopp ci euh, yenn environnement yi donc loolu laa laa bëggoon wax euh, di gërëm ñëpp di sant ñëpp et di euh, ñaan yàlla lii mu nekk un bon vieux souvenir sous peu de temps incha allah. non il faut bouche d'incendie ñu delloo ko te loolu lépp aussi ci ci doxalin yi est-ce que xam nga ni bërëb marché yi boo dee ay sànq y a des bouches d'incendie qui existent mais dañ ñëw tabax ci kawam yaa a y a toutes toutes ces situations qui sont les sapeurs-pompiers def nañ une situation globale c'était au profit du ministère de l'intérieur situation boobu laa ñaan ñu génneel ñu li nga xam ne tey moo ñu concerne parce que chaque fois dafa mel ni lakk yi fii la gën a bëre kon je suis interpellé pour ñu jéem xool lan lañ ci mën def ci lu gaaw ci wàllu woowu maire de Dakar exprimé na disponibilité am pour accompagner ci loolu kon bu ñu amee situation boobu danañ ko waxtaane beneen bi mooy tey fi ñu toll nii massawu suñu mbokk yi